bismillah waaw kay sëñ Baye Cheikh mooy joxe teraanga ah Baye Cheikh Baye Cheikh day baatale fi mu ne jox ko sëñ Fatou Seye jox ko sëñ Moussa. macha allah yàlla ngeen ko yàgg a teewee bàyyi Cheikh am koy baatare ngir jënd xaside yi bàyyi Cheikh nag lu mu def xaside yi tax na ñu koy baatare ngir jënd xaside yi jox na ko ay xaside yu bëree bëree bëri ay xaside yu bëri macha allah moom la indee sëñ Moussa macha allah bàyyi Cheikh nag tas na la jënd naa sax ci xaside yi waaye jënd na la cee soññ. li ngeen ciy séntu yàlla nañ ko sëñ bi defal def na ko ndeysaan macha allah jëlaatee suñu baykat yi am na solo suñu doon a ñàkk waaye lii daa rafet ci diggante ay ndaw yàlla nañ suñu borom sàmm te sàmmal leen seen ànd bi ba mu gën a rafet yàlla na barke bu ko defee sëñ Baye Seck sànni kàddu sa digganteeg sëñ Moussa rek yéeg bi nga ci am ba mu jox la dara jaaree nga doon léegi yi tamit mën koo wuyu si bisimilah. مقدارها هي بلا مصيري يسر لي ميسر نسير مقدارها النبي جبل وزاغ مبين توفيقات قالوا إلغام أخذ بدياره ما لهم بغام بلغني اليوم برب الخيام أعادني من مقلى والقيام لا يتوجه لله الخبار عني مخدمك لي وتمضى سعادتي بخير ما في كتبتي فقط لي الخد القديم خصب لي سكر لي ميز النذير مختار وردي بلا مصير سكر لي ميز النذير مختار وردي بلا مصير السلام عليكم mbokk jullit mbokk talib bi ñu leen di leen ziyaare kon si Moussa la ziar bu baax a baax di ziaraat mbokk jullit yi mbokk taalibe yi fii nga xam si ñoo fi teew suñu sëriñ Cheikh Moustapha Mbacké ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak sëriñ Xaadim Buur ci tax ñu man ñu ngi koy ziaraat bu baax a baax di ziaraat ñëpp rek képp koo xam si ne mu ngi fi teew ak sëriñ Baye Omar ñu jàng ba pare di nuyuwaat ñëpp rek ñu leen di wax ni sëriñ Moussa am nañ kontaan ci moom bi kontaan nañ lool baax baax ndax tout tànk la biy jàng xasida kon ni mu def nii yomb def bis mu mel nii yomb kon ñu lay wax ni jàmbaar nga lool waaye ñu lay ñaanal suñu borom yàggal fi lool te wér di ñaanal say waajur suñu borom yàggal leen lool te wér te ni lii nga def tey jii. ñoom defuñu ko ci yow Sëriñ Tuubaa ko def ci ñoom ci yow bàyyi ak yaay defuñu lii ci yow waaw doon Sëriñ Tuubaa def ci yow kon nag góorgóorlu doxat ci lépp Sëriñ Tuubaa loolu daal lay am luñ lay wax ci kàddu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëñ Baye Cheikh kàddu ci wet muy ay laxasaayu murit yu murite ñu ngi ñaan mu jig la da nga rappel koo jàmm ci barke Seydou Khadim yàlla nañ sa jiglaay nga yàgg koo teewee ñëpp yàgg laa wuy si dañ yàgg laa teralee teraanga yu raw yi ndax soppe yi moom ku ne xam na ni seen yéene ëpp na li waaye ni bis bi demee na rek ak jamono waaye ñoo ngi ñaan bu ëllëgee bu gën a yaatu soppe yeeg dëkkandoo yi ku ne indi sa wàll ci bis bi jërë ngeen jëf soppe yi macha allah bu ko defee rek ngeen daa mel ne daa des. kay ñu ne ah macha allah lii mooy wane ne bokk na ci ambassadeur yi Serigne bu yi yaa ngi toog sol colu murit yor sa xasida wane na ne yaa ngi ci mission bi yàlla boo ko wàcc ci barke Seexul Xadim kon bu ko defee rek si xasida moom it mu jege si ak ci teraangaam moom comme moom mooy invité village jàppale leen ko bagage maanaam ay nawet soxna di ko wasu li dama mel si daal di rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun اللهم يا قوتك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه يا من جعل نصره خلوق رداك ورداء رسولك عليه الصلاة والسلام وكما جمع مؤمنه وعمل المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بارك بردوغا وجنت كل جميع وسكور إلى ولي المؤمنين وصبور وجنت كل جميع وسكور إلى ولي المؤمنين وصبور كن يا ولي يا قدير يا نشير للمؤمنين إنك العزيز البشير أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يعصى من أسلم تبارا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يعصى من استغفر لسوانا كل من ليس يكون موصلا يعصصما نفطنا بأفضل الإيمان فتنفع الجميع بالأمان حفظنا به وبالإسلام فلتعبد الكل عن الملام خدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أعطيت من لم يعبدا النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورث منزل الكلام مثل النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء ورث منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم وبشر سؤال بمنتخبتم ما يسر عاملا رعاية وخدمة تقبلا يسر سيد الورى مختارا يا باقي جعله مختارا ما في وصل ولتسلم في أبد على الذي لك يقول من أبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورد بتكليم واذكر قربها نبي وصل ولتسلم يا سلام على النبي والآل وصحبه الكرام صلاة سرعة عتيب الصمد على النبي وآل وعمد قدامك إلى الهدى إلى الهدى يا من أباني بموجل الهدى توصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني السلامة لكل مؤمن وكل مؤمنة توصل بسارة النساء المؤمنة لكل محسن ومحسنة على بسارة الترى محسنة وجيل أمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من مدى يقوم يا من يكون من nan bakona na janto ga yama bi ambe wo sugo mu'minina ya wali ya sagar khudu li kumba yakuna haji kabila an tani wala ta haji faita iblis li khairi abada yusairi sawa kullam man ya wada ujiyi man qad amana wa atama wa asanu mujila man lam yadama kawin ummati nabi sallallahu alayhi bi tadim wa rabbul jalla ijabatan tusabi wal adam la siwa sarmadan wa dar نافع يا كريم يا مهيمن يستجيب للذي يعمل عفيفة أمة خير مرسل عن الذين كفروا برسل كلهم نظر عزيزا عاجلا وبصيرا وعاجلا وعاجلا كل سبيل الإيمان ما يسيج وبقى يعمل إنه مصيرا عن سبيل الإسلام عن ركون لا هداك وعن سكون على النبي والرسول المستعان صلي وسلم يا مبين من جعل المتقى والآل والصحب الكرام أوصل سلامك وجل بالمرام يا من له خلق كماله أمور يا مقر يان عليك نيان دانر نجيتك يما وعم شراديا وبخريت دون سكناديا وسل أمة النبي يا مدى مصليا عليه بمن حمدا وسلم حديثا يشمل الكبارا مع شعار له من بارا شن الحديث والقرآن كالكتاب من الذين انطلعوا من المطاب رابعوا برفان الكتاب والقرآن وعن أحاديث جهة خزابرا أتيتني جميعا دون سلب وليت قرص على وقت الطلب لأوزن الذي أريد واربعا من الوراء يا مواني أنا أمبان

هذا جرني بالمنتقى وفرت لما ودعه دوتها مجيب لمن يسألها يبا بعبر لسالين النجبا منت لي مرد من لا يخفى والله سيجتني بأخفى نفيت كل من خلاني بغرب لمن يسوء دواما ساقرب إلا يا رحمن يا بصير قدير يا رحيم يا نصير جيت من بيتعلق معه من سياتي فسكر يا رحمن وجدت سكري إلى الرحمن المالك رحيم مثل الأطمان رمني بموضع وبلد شر ملك أن صفا قلني أكرمني رما إكراما كبا ديتي بالروا بيدي وكبا نجد ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمد الله